الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي محمد المصطفى مولاه مولاه كل العطايا وأضناه وأعلى محمد المصطفى مولاه مولاه كل العطايا وأضناه وأعلى محمد المصطفى مولاه مولاه كل العطايا وعظماه وأعماه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعظماه وأعماه أوى وشم عطاه فاقتدى نفر بعده وبعيد البر أعماه كل العطايا وعظماه وأعماه الله تعالى والله أرسل للخلق ضرا فما في الوزن مولاه كل العطايا قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى أسى المصطفى وصفه من أجل قرباه مولاه مولاه كل هو الله والله أكرم في يوم مولده ووقت نشاته وليل مسرعه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه مولاه والله أرسله للناس أجمعين قد من رسالة ما أعلى وأعلى المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه مولاه تعبت سريرته قد سجيده قدم صورته وتم معناه كل العطايا وأذناه وعظاه جمت طوارق عورق الطلائق والقلب قالق لولاه ما شاءوا محمد سيد الكونين قرتنا كل ما قد بدا فمن الطايا هو الحبيب الذي أترى الحبيب به جبريل قادم ولا قناجا محمد المصطفى أولاه مولاه هو العبيب الذي أطرى الحبيب به جبريل قادم ولا قلنا جاء شلو وتي سرايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل هدايا وأدناه وأعلاه عنا العجائب بنا القرائب فتيكم شلا وتي سرايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل الهدايا وأدناه وأعلاه وتلك رافته وتلك منته وتلك إجلته وتي مطاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الهدايا وأدناه يحلي بلا سبب يحلي بلا عجب يقو بلا قدب فتي سجايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل هدايا وأدناه وأنا وتلك طيبته وتلك دامته وتي تلاوته وذاك جدواه محمد المصطفى أولاه مولاه كل هدايا وأدناه وأنا وتلك طيبته دومته وديت ثلاثه وذا معيا محمد المصطفى أولاه مولاه كل ردايا وأدناه وأولاه وتلك مكة وتلك طيبة وتي تلاوته وذاك جدواه محمد المصطفى أولاه مولاه كل ردايا وأدناه

وتي فزع أدعو وتي شمايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل خطايا وأدناه وأغناه وتي شجاعته وتي بصالته وتي كرامته وتي وصايا محمد المصطفى أولاه مولاه كل خطايا وأدناه وأغناه وتي شجاعته ودي بصالته ودي كرامته ودي وصاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الهدايا وعدناه وعلاه وصل يا ربنا وسلم على هذا الحبيب وكمل ربي بشراه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الهدايا وعدناه وعلاه وصل يا صدق العبيد العيا محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأولاه وصل يا ربنا وسلم على ما عيد الالي الذي قد علياه مولاه وصل يا ربنا وسلم على

محمد بشر وليس كالبشر سر بالحقيق وربي تسمى محمد المصطفى أولاه مولاه كل الخطايا وأدناه دائما مع عجل بال ذكراه مولاه مولاه كل العطايا وعدناه وصل يا ربنا وسلم على محمد المصطفى ما طاب معناه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعدناه وصلي يا ربنا around. وبقلبي صار مشواه محمد المصطفى أولى مولاه كل الهدايا وأنا هواه وصل يا ربنا وسلم على محمد وحد به أمري براياه محمد المصطفى أولى مولاه كل الهدايا وأنا هواه محمد وسع من شم مولاه محمد المصطفى أولاه مولاه قل لطا وأنه وأخاه loolu sama baay alaaji Maasum may don wax nan yaram dawna waye deg li ma sha allah xamni lislam rek la nak bi muy ñëw fi tey wéetu ci ki mu àndal sama téléphone sànq ba léegi mi ngi bëgg a xar te dara tàmbaleegul muy sëñ Fàllu Fall ñu koy wax Fàllu Baay Fàllu ñu ngi lay nuyu waaye nag ànd kook nag euh, ci wayal na suñu xarit muy Baabulaay Sissoko ak ya Ayda bi nga xam ni moo nekk ci ataay ji ndax tey xam ni tey wayal na bi du lewal Ayda soxna Ayda man dama ma lay njëkk laaj mooy air bi nga njëkk a jël sànq sikar bi mooy hymne national kër kër kër baay air bi mën nga ñu cee wax dara maanaam eh, air bi fi mu jógee ak air bi nga wax ñu ci dara ci air boobu nga xam ni mooy hymne national foofu foo ko dégg xam ne kii njabootu maam Baye Niass la. macha allah. asalaamaaleykum. Mhm. Mhm. Eh, balaa ñuy wax dara dañuy wax eh, ñu ngi sant yàlla. bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi Wasallam sallallahu alayhi wa di sant uh, mboolem jullit mhm. di baalu ñëpp àq ci weer bu bi di bal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñ bopp di ñaan weeru koor gi niñ ci duggee ak bismillahi rahmaani rahim yàlla may ñu ñu di ko oor ba fim mu toll nii yàlla nañu yàlla bañ jekkali ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant ñu ngi wax alhamdulilah ala kulli ndax eh, lii tey bu fekkee ne mën nañ am kàttan goo xam ne déplacé woon nañ ci suñuy kër ñëw bu fii ci mbaaxu yàlla la buñ fi mënee ñëw ŋaang nooyi benn nooyi bu yegg sax eh, ci mbaaxu yàlla la waxu malaak nag toog suuf ba léegi di tudd yàlla di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu mbooleem jullit ngi nuyu waa kër Euh, Cheikh Ibrahima Niass yi nga xam ne ñoom lañuy représenté fépp fu ñu dem ci média yi euh, muy mi dina bàyyi di jiital ci nuyoo bi suñ sëriñ euh, suñu sang suñu papa di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan. yàlla may ko wér di ñaanal ñoom papa Mahi di ñaanal tamit Cheikh Imam Imamul Akbar di suñ imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé. di ñaanal mboolem njabootam ak mboolem njabootu Seydi Aliou Cissé di ñaanal doomu bàyyi jigéen yi yépp ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal ñu góor ñi di ñaanal suñu suñu sëriñ si sëti bàyyi di leen ñaanal di ñaanal bépp muqaddam Mawlana Cheikh Ibrahim waaye ñu ngi ñaanal suñu muqaddam di ko ziyaar di bàyyi Cheikh Mamour Insa euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal euh, suñu borom kër nga xam ne moo ñu jox ndigal moom it ñu ñëw ñu mën a ñëw fii def si émission bi wax dëgg yàlla suñu borom kër la waaye muqaddami Mawlana Cheikh Ibrahim la ci buntu Mawlana Cheikh Abdou Barham ñu ngi koy ñaanal bu baax gudd fan ak wér moom tamit ndax mu ngi ñuy jàppale te mu ngi ñuy dimbali ci li nga xam ne moom la ñuy def ndax lii dafa yombul mission bi nga xam ne nii moom la yàlla teg ci suñ loxo ñu di ko dawal Mawlana Cheikh Ibrahim duut loo xam ne lu yomb la ba tax na boo ci nekkee nit euh, nekk boo xam ne nii wax dëgg yàlla bi ngeen ci nekkee ba léegi ëpp na fukki at ak nangam. Mm-hmm. te dara mësta ñaaw jóge ko ci moom dañ ko ciy sant bu baax ndax mu ñuy dimbale bu baax ci li nga xam ne nii ci lañ nekk mu ñu ciy yedd mu ñu ciy doole xelam mu ñu ciy taxawu ndeyjoor ak càmmoñam rawatina ay taalibeem ak ay doomam yi nga xam ne ñoom laa nekkal ci kër ga ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu fàllu mi nga xam ne mooy sama lépp euh, sama diggante ak moom moom mënuma toog fii ci télé bi di ko wax waaye maa ngi koy nuyu maa ngi koy gërëm bu baax a baax di nuyu ñoom baabu laay nga xam ne suñu càmmiñ la suñu frère la bu yàgg yàgg sax euh, jamono yu yàgg jamono yi may doo ko tourné doo ko tourné sama clip dellu ci yàlla bi ak ñoom Noël Guèye yooyu ñun ñoo doon nekk ñoom ñoo ci doon jàpp di di kii bu ma defee erreur ñoo ma doon dimbale ndax boobu maa ngi doon doog a dugg ci mbir yi di ma waxal ni may def su ma wéyee fii ñu ne ma fii baax na mais wéyee nii ay da boo ko wéyee woon nii donc def nañ ci lu bari ñoom tam maa ngi ñaanal njabootu Cheikh Ibrahim yépp di ñaanal suñ papa Serigne Mahdi Ibrahima ñas moom tam bokk na ci ki nga xam bokk na ci ñi nga xam ne dimbale nañu bañ mun a egsi ci lii parce que ci début ba bokk na ci ñi nga xam ne ñooñu ñooñu xelal pour ñu mën a yëngatu ci li nga xam ne ñu ngi koy def di ci boole musique spirituelle bi mhm. donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ñu ngi ñaanal mbooleem jullit di dem ci kër diine yi di ñaanal suñu euh, euh, papa euh, Cheikh Mountakha mhm. Mbacké mhm. di ko ñaanal yàlla may ko moom it gudd fan lool mu yàgg taxaw taxawal diine ji wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal wér di ñaanal baaba kër sëriñ Babacar Sy Mansour ci waawoon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal mbooleem xalif généraux yi waa Laayeen bàyyiwuñ leen waa Cenaba Njaaseen bàyyiwu Njaasaan bàyyiwuñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp mbooleem jullit ñu ngi nuyu ñëpp amul xaj yi amul seen di ñaanal ñëpp di sàkku ci ñëpp ñaan ñu ñaanal ñu di nuyu suñuy suñuy soppe suñuy xarit konte bëgg bàyyi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax vraiment mm-hmm. di la ñaanal yàlla yàlla may la li nga bëgg ci kër cheikh al islam alaaji ibrahima Niass li ngay liggéey yàlla na ko yàlla ful yàlla na la bàyyi nangul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. jullit mboolem taalibe bàyyi ñu ngi nuyu ñëpp bàyyi wuñu kenn amin soxna Aida jërëjëf ci nuyoo boobu xam naa damay dellu sama première question balaa ñuy ñëw ci tey moom mhm. maa bëgg ñu wax tuuti nag mhm. Aïda am na ñoo xam ni dañoo boobu ba léegi ñu ngi woote ana Aïda soxna Aïda soxna Aïda mm-hmm. te damaa bëgg ñu way ndax li ma lay njëkk a laaj rek mooy way wi nga xam ni mm-hmm. day hymne national boo xam ni foo ko dégg rek mm-hmm. ñu ni njabootu maam Baye Niass la ma bëgg nga wax ma ci air boobu tuuti ndax air boobu fu mu cosaanoo ba bu ko Aïda yëkkatee rek macha allah nit ñi seen yaram dootuñu mën a téye seen bopp ci air boobu waaw alhamdulilah euh, ñu sant yàlla bu baax a baax a baax di kontaan ci laaj yi nga xam ne yaa ngi koy laaj mu jógee ci suñu pay bi zikkar si nag dafa nekk zikkar zikkar boo xam ne boo demee kër baay ñu ngi koy tuddee zikkar ëwël ëwël waaw ëwël mooy li njëkk daal maanaam zikkar si boo koy tàmbali mhm. dafay am nu muy tàmbalee nga di ko def noonu fi mu toll fii mënoon nañ ko téye noonu rek jàpp jàpp ko ngay dem ba ci digg bi zikkar bi dafay am yéegal am wàccee am am wàccee am yéegal wax dëgg yàlla mu doon loo xamante ne fii ba mënoon di ko di ko di ko wëy di ko tudd mooy baat boobu laay laa moom lañuy ñuy lalee suñu gàmm yi Medina moom la ñuy. moom la ñuy tàmbalee waaw moom la gàmmu goo dem kër Cheikh Ibrahim rek gàmmu ga taabal bi ñu ngi koy lalee loolu mooy laa ilaaha illallah nga xam ne moom bari na ay façon yoo xam ne ni ñu ngi ko koy tëggee ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim. mais day bu njëkk. waaw mais yii moom ci zikkaru cosaan yi la bokk moo tax bokk ci zikkaru cosaan yi. am na yoo xam ne sax ci kuusi borom pay bi moom Cheikh Ibrahim ci boppam moo ko daan sikkaral boppam. kon boobu daañu ci ñëw. incha allah incha allah kooku mooy soxna ay dabaay ñu ngi cee ànd ak euh, Serigne Cheikh assan Konté di mu baay ak soxnaam soxna Sala Sall ak soxna ay Aysatu Diallo ak njaboot gépp ñu ngi toog ak njabootu maam Baye gépp naka noonu. ñi ngi ziar bu baax serigne Mamour Insa Diop ak rakam ji nga xamni moy serigne sëriñ Cheikh Babacar Diop ñi mo xadam mo am bàyyi nek ci pays bi mu melne dal dañu la dan la bàyyi ndax nit ñi tay dañu bëgg deglu soxna Aida ci benen facette wayal nabi lañ wax Aida ban nga ñu ci tegal asbi bi wa أسدي بشيخ تجاني حسبي بي وبداع حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبداع حسبي بشيخ تجاني حسبي نار عوفين حسبي به وكفاني حسبي به وبدا حسبي بشيخ تجاني حسبي ببر رعوف حسبي به وكفاني حسبي به وبداها حسبي بشيخ تجاني قلبي له ومرامي وقال بي ربي فدارك بيدا صراطا دون تواني حسبي به وبداها حسبي بشيخ ابتداني لا أنا ولا تواس بجناني حسبي به حسبي طريق تداني واجعل فؤادك ذكري ولا تسر كباني أصبي به وبداها أصبي بشيق تداني ولتشفي لي كل شكوى وتغني ظلماني أصبي به وبداها أصبي بشيق تداني بجاه وجاي شيقي تجاني وجاي شيقي وأصلي وليدي على المكان حسبيني به وبداها حسبي بشيقي تجاني الحاج عبد الإلهي بحجتي دول لواني حسبيني وبداها حسني بشيخنا مطلبي رقي مقامي سرعة في ذا زماني حسني به ورداها حسني بشيخنا مطلبي عرس أصولي سرعة دون تواني حسني به ورداها حبيبي شيء أرد سوى إلقاء لأب المعني فلست أرد سوى إرقاء لهذا المعاني أتيت شيخ تجاني لأجل أمر داني ميلانه أم دنيا وزاك منكدياني أصلي وبداء أصلي بشيخ تجاني أجري فوق قدام حكم شيق تجاني أجر بيدك برهام فهو في قطفاني حسبي به وبداء حسبي بشيق تجاني إلهنا هو أما دنيا وزاد منتدياني حسبي به وبداء حسبي بشيق تجاني الأجر قديمك قد أم كوم شيخ تجاني أجر بيدك برهام فهو في الحب باني أصلي به ورداء أصلي بشيخ تجاني إذا فأبد مناهم إذا بكم كفاني حصيبي وبداها حصيبي أسكى سلامي سلامي على سعيد جناني حسبي حسبي بشيخ تجاني من بعد كل زعاب بعد آل كل عاني حسبي به وبتاه حسبي بشيخ تجاني ودعوني شيق أورادي وأذابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريعاني ومدح الشيق أورادي وأذابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريعاني وشيقي كتم معواني فتدفع منه آثاني وأحلو منه أقراني فقولي سبيلاني ومدح الشيخ اورادي واعظامي وإعدادي وسيفي بين أداني وهو روحي وليالي فشيقي سره أودى لأحبابي للأبد سموما شم للأبدان إمدادا بإحساني ومدعو شيخ أورادي وأعلاني وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي ورياني منك أترابا وأبدالا وأندابا ومنكم جاء أقدابا فيهدى النار عرفاني فمدح الشيخ أراني وأراني go. أنت الغاية القصوى لنائم بل كرداني ومده شيق أولادي وأعظامي وإعدادي وسيفي بين أندادي وغروري وريعاني الأمين ذلك لمسوى على مسواكم المأوى فأنت الغاية القصوى لنائم فالقرداني ومدعو شيق أورادي وآذاني وإعدادي وسيفي بين أداني وهو رودي ورياني أحمد القطب أدناني وأفناني وأبقاني ويامي في أزماني وعيراني وعماني ومده الشيخ أراني وأراني وإعداني وسيفي بين أداني وأوراني حقك المسوى على المسواكم فأنت لقاية القصوى دناء بل ومده ومدعو أورادي وأعظامي وإرادي وسيفي بين أدادي وهو روحي ورياني عبد القطب أدناني وأفناني وأبقاني ويامي فيه أذماني وعيراني وعيماني ومده أورادي وأعذابي وإعدادي وسيفي بين أداني وهو روحي وريعاني عيني عين مشروبي وما كلي ومشروبي وداد القطب مصحوبي بأسفار وأوتاني ومده الشيق أورادي وأذاني وإعدادي وسيفي بين ألداني وهو روحي ورياني فكابيت في أجواقا وعاشر في عتاقا وساويت بيعي أوراق الأيام مثل قيلاني بدمعين فوق جبوبي وجرين فوق يعبوبي لنعوي القدم معبوبي ومصال لأدراني لمولانا وملجانا ومأوانا ومنجانا أبلا أباس مسكانا ممد كل تيجاني على الأقدام رجلاء فيا القدم بشراء وبشرى من بزلفاء ومن في شوق إرحاني Cheikh Tijan Nahu wirdun minal hadi samaan kulli awradi Di asyakin wa afradin fahazal wirdu aknani فخير سابقة الله عليه شيخ بدلنا ونعفيز تقدمنا إلى البلوى خسراني نحول سعب كأقمار سعوفة وأسرار وتمكين وأنوار وكل عين عين kami sabka akrazim ma adam rawi lakatim wana jelul misris al alim falala walawani Syekh Tijan wa Ma'mudin Umami Karmi wa Shinji Tifi Halbar رأوا برهامه الأشعر فكله برفاني أمامي تاج أعلى الله أمامي عين عين الله تفاحم رمز أعلى الله فلا تبلى نكراني شيخ تجان فشيقي برزق المكتم وشيقي قاتم وشيقي عالم الموسم بإمداد شيخ تجان أطيل المدى أو أكثر بدر كل وصف لا أقدر ولا ميشار أشلل ولا واف أزمان وقزع بنت أفكار وتقدير أنت أوتاني بأسرار وأنوار فأمسي فوق أقراني على الأعدي وأصحابي وآلين ثم أصحابي صلاة رب عقاب وتسليم كسلواني waaye xam naa ne ñu bàyyi la tuuti nga noppalu man ay ma bëggoon maa bëggoon nga wax ma tuuti ci Cheikh al kan mooy Mame waaw laajte nga loo xam ne lu lu doy waar la ndax moom Mawlana Cheikh Ibrahim mhm. radiallahu anhu dafa nekk koo xam ne. Mhm. dafa ñëw réer ñu mër wane yàlla moom bi mu ñëwee macha allah ñas daf ne kaay leen ma wan leen yàlla. moom kan mooy waajuram. moom maam alxaaji Abdul Ilaahi Ñas mhm. mooy waajuram. Mhm. waaye xam nga moom mission bi ko tax a jóg. di mission xamle yàlla. loolu la wane muy koo xam ne ay guddeem ay bëccëgam ay yëngatoom ay dalam yépp mu ngi ko jël teg ko ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy référence am bàyyi mooy ki nga xam ne ku naqaree wax nga ma wax waaye doy na ci rek ne bàyyi eh, Cheikh Ibrahim Ñas radiyallahu anhu mhm. moo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, moom loolu lay tiitaroo loolu ay may yu rëy yoo xam ne ni yàlla may na ko ko waaye lépp mu ko jël njukkalee ko yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi doy na ci cheikh ibrahima ñas eh, ki waxoon ne isa saara xayru naasi surtout wa in xalla yowman fal masiru baid mu ne moom Baye moom Mawlana Cheikh Ibrahim bu yonent doxee moom Baye mu dox topp ci kaw yonent waaye bu yonent taxawee dox amatut dafay taxaw moom Baye mooy koo xam ne nii léppam daf koo jël jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi nag ba àndut ci ak sagom bëgg yonent bi ba wax inna nii xablal baraaya xubbu shoolul jinaani fa huwa akli wa sharabi wa huwa diini wa jinaani mu ne moom njëkk am ak mbindéef moom Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mu ngi fi woon di bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam mu mel ni dañ ko laaj ne loo doon lekk wala loo doon naan ndax bal yàlla balaa amal dara laata yàlla di amal dara mm-hmm. mu ne moom Cheikh Ibrahima Niass mu ngi fi woon di bëgg yonent bi sallallahu ne fa lii moo doonoon sama yi moom yonent bi moo doonoon lekkam mm-hmm. wa sharaab yi waaye moo doonoon naan gi doon naan mm-hmm. wax wa diini mooy sama diine moom yonent bi sallallahu wa sallam wa jinaani waaye mooy sama aljana kon kooku macha allah neexut a wax ci moom parce que Baye kenn xamu ko Baye munuñ koo xam fii munuñ koo xam alaxira waaye nag ñëw na nekk kaay leen ma wan leen yàlla moom yàlla la wane liñ lay mën a wax tuuti ci yàlla sax ak moom tuuti tuuti tuuti ak suñu xam-xam bu ndaw fekkut ci Maulana Cheikh Ibrahim waaye daal doy na ci ne moom jaamu yàlla la boo xam ne ku bëggoon yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te ku ko toppoon la ndax wax na ne maa ngi sant yàlla man Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba yàlla dimbale na ma sama bakkan suma jéng jëm ci lu neexut yàlla. Hmm. kooku maa ngi topp rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga jox diggante Baye tuuti ak Cheikh Ahmed Tidiane waaw ba tey. waaw wax na parce que. Euh, dafa am ñoo xam sax ba tay comprendre bay bàyyi ko bol ak Cheikh Ahmed Tidiane cheikh waaw mbiru Cheikh Ibrahim mhm. ak cheikh Tidiane mhm. parce que am na ñuy wax Tidiane ne mhm. bokku ñu Tidiane ak ñeseen ñaseen euh, sant la rek Baye dafa sant ñas dafa sant ñas ak mbolem ko sant ñas rek ñu ne ñaseen ni papaam ñas maa laaji Abdoulaye léegi nag comme lew na googu noonu ñu doon wax lew na ñeseen ñaseen ñeseen ñes sant la ñeseen sant la waaye Maulana Cheikh Ibrahim taalibe Cheikhu tiijaan la taalibe Cheikhu tiijaan la dem na ci ba wax ne moom ñaari sëriñ la am ci zaahir ak ci baatin mu ne sëriñi zaahiram kooku mooy kii mooy. mooy mooy yaa daba. borom ataaya ji macha allah joxal gaa yi. Ah, xam naa ne waxtaan boo ànd ak ataaya dina neex tuuti. waaw macha allah am na solo. incha mhm. mu ne suma sëriñ ci zaahir. waaw mooy alquran ak sunna. Mhm. alquran ak sunna mooy sëriñam. Mhm. ci zaahir moomu Cheikh Ibrahim waaye gisul ku ko ko gën a dégg. mu ne sëriñi baatinam mooy Maulana Cheikh Ahmed Tidiane. Chérif waaye mu ne moom du tàggoog Cheikhu Tidiane benn génneeku bàyyi mu ne du tàggoog Cheikh Tidiane benn génneeku te it li liyee bàyyi ak Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane junj na ko ci téeréem bind na ko ci téeréem balaa muy génn àdduna moom bàyyi boole na ko ci ay mbind li ko boole ak Cheikhu Tidiane waaw Cheikhu Tidiane junj na Mawlana Cheikh Ibrahim ne sama tariixa bi faydu dina ci feeñ faydu dina feeñ ci sama faydu mooy lan Soxna Aida waaw faydu niñ ko mën a misaalee mooy loo xam ne dafa fees bay tuur faydu bëgg hmm. dolleeku la paan dolleeku la ci ci ci ci ci tariixa Cheikh bi te loolu Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla teg na ko ci loxoom Cheikhu Tidiane waxoon na ne taati faydatun ala asaabi yadxuloo naa si fii tariqatuna afwaajan afwaajan borom faydu boobu Cheikhu Tidiane mel na leen na ko ba ne bis bu feeñee ci sama faydu bi dina dugal ay kuréeli kuréeli kuréel ci tariqa bi waaw te dina bëri ñoo xam ne danañ ko topp ci ñoo xam ne nii bokkuñu ay xeet te soo seetloo bàyyi ñu ko topp bari na ñoo xam ne ni bokkuñ ay xeet bokkuñ boo demee ba ay Cameroun ba ay Tchad Nigéria gi bari na ñoo xam ne ni ay xeet yu bokkul lañ mosuñu nangoo laayat am na ci ñoo xam ne ay xeet yoo xam ne mosuñu war a boole leen dem nañ bay takkante di sëyante macha allah seen biir donc bàyyi li ko lii ak Cheikh Tidiane bari na waaye loolu rek lenn la ci ne tariqa tijaan bi bàyyi am na ci ndolloon lo xamne ne lu la muy faydu bi nga xamne ni mom la ko yalla tek ci loxo ñu ngok tariqa tijaan mhm. cheikh al islam mam bàyyi am na ci lo xamne liggey ni ci ba am ci lo xamne mom la ko yalla fayé muy faydu bi ñu waxe faydu bi xel yëpp dem ci cheikh al islam mam bàyyi bu ngeen gisee ma di laaj euh, soxna Aida laaj yi ma laaj ko xam nga nit lepp lu muy yëngu nu nekk rek war na ci am lu mu ci xam te macha allah ni nga bokk ci kër Cheikh al Islam mam bay am ci xam-xam bi dafa dafa am solo lool man dal mu bëgg ñu ñëwaat ci benen air su ko defee bu ñu ñëwee ba noppi nag dañu am laaj yu ñu la laaj ngir nit ñi mën a xam kan mooy soxna la Baye. allah allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

na juma taalib nay téere samp na daara xamal nañu yàlla faasam yu jekk yaa bàyyi doxam bu tey ba maam yu jekk yaa doxam bu teeri baañas maandu gaag baay nga xam ne baay la faasam yu yu jekk yaa baay ñas doxam bu teey baay ga ka kam ne bai la mam abdu nyeng nena ko à mam abdu nyeng ne bem. musani shamsu sumosi, rahsu ruusi tajul urusi saqal masani abdul ilahi qalilulahi habibulahi matu masani

Aminu layi Habibu layi Mato masani Ratul ayade baila sudore Nyas ayatul aqi Ma'nal mani Karmul qurumi fakul qurumi khatul qur'ani نفي سناني براماسي براماسي برامسامي فهو عذبي وقد كفاني مجلي الفحول مهدي الوصول مهدي سحوني قدم القرآن

صدقين بلا دمان أنت المنادي أنا الملابي لبيت جحرنا دون امتحاني بل أنت نادي ثم الملابي إذا أجيت بلا ودناني وذا محب يحب دافعا وقت الوسائل في الملواني وذا محب يحب صدق فأنت صدق بالأمتناني أنا اخترع لي جناب شيقي نجوت منه در المعاني تمن مقالي بلا كمالي تمن مقالي بلا كمالي تمن مقالي بلا كمالي سميت منها نيل الأمان khulqin azimi Yalla kunjeketake Rasul lai Wa ina kan ala khulqin azimi Rasul Rasul nañu la ñun bëgg nañu la ñun bëgg nañu la rasulullah ñun wóolu nañu la ya rasulullah kàttul ku dul fees neex ya rasulullah gàttul guddul fees neex ya rasuulillaahi baraama moo ngi takk rasuulillaahi xonqu ta moom weexu ta weex moom dafa ne ci diggante bi ya rasuulillaahi woppa dafa marag loo yaa rasuulillaahi moom bët ya dañoo reyoon yaa rasuulillaahi la ca weex fa weex a weex la sa ñuul fa ñuul a ñuul bu ñëpp toogee yaa rasuulillaahi nga foog na yow lay xool billaay bàyyi mu ne xoolu muy xool jël na la ya rasulillahi oh babulay li wolof di wax naan bu la yàlla mayee baat bu neex ba nga mën way te wayoo yonent bi sallallahu alaihi wasallam. sallam ka nga way deena sa way wa deena macha allah soxna Ayda Baye nee ko amul murid amul tijan, amul khadir ñëpp a ko bëgg. seen kër dafa mel yow rek yaa ci sikar. sama ay mom rakam mhm. ñu koy wax Cissé Mbaye du koo xam ne ni ku ràññeeku la ci tudd yàlla. ñu mhm. bëri xam nañ ko wax dëgg yàlla ci loolu la nekk te ba ci la nekk mhm. donc ci li lay yëngu comme man. kon suñu kër. yaakaar naa lii rek lañ xam moo tax euh, man ba ma màggee damaa xam lii rek dama xamul leneen lu du mhm. tudd yàlla mhm. tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mhm. Mawlana Cheikh Ibrahim bi ma ñëwee fii tamit dakaar sama papa ji nga xam ne moom lañ ma jox mu yar ma muy. bi ngay ñëw bi ngay ñëw Dakar boobu kawlak nga jóge wala. waaw Kaolack laa jóge waaw man waa Kaolack laa mais moom moo ma yar. depuis ma nekk xale sam papa daf ma koo mayoon. macha allah donc te moom fii la nekk ak soxnaam bu ñuy wax Jogob Dieng ñi ngi faas weti kër ñoom tonton ñoom mbay ji fay euh, fa nekk ci rangé boobu maa ngi nuyuwaale waa faas yëpp ak waa Medina. Mhm. di leen wax maa ngi leen di ziar ci koor gi euh, fa la nekk ak soxnaam Jogob kooku jël ma def ma doomam bëgg ma bëgg goo xam ne yaakaar naa jur rek la def ci man. mais lépp lépp lépp jaraloon naa ko ko moom soxnaam soosu noonu di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñoom it ñu yar ma ndax ba may débuté sikkar si man mhm. fii laa ko débuté waaye moom lu nekk daj na ko ci dem na ci ba bu may dem daayira moom daf may topp ànd ak man ba ma egg ci daayira bi mu taxaw fële parce que moom gëmutoon ne man damay téye micro nii di sikkar parce que man dama nekkoon koo xam ne ba léegi sax nit ku ragal nit laa ku bëri kersa laa euh, donc ay yëfi mbooloo yi mës a nekk sama mbir mhm. moom da doon dem du xool su ñëwee ba gis ma ci biir daayira bi ma téye micro bi di sikkar dafay jooyo jooyo jooy ba buy ñibbi du xam fu muy jaar donc mu nekk loo xam ne nii lu kii la ma ñëw Dakar ñu wanale ma ak sama sëriñ Baye Cheikh Mamour Insa wallaay mhm. bi euh, yàlla boole ma ak moom ma nekk ak moom nekk ak moom it nekk boo xam ne moom it nekk bu rafet la ndax bi may nekk ak moom yàlla di ma booleek moom boobu gën naa nekk xale yàlla boole ma ak moom mu jox ma ndigal nag ci tudd yàlla gi falaa ko commencé. ci Cheikh Mamour Insa waaw falaa commencé lii falaa tàmbalee lii moo ma ci joxit ndigal te it ba ma ci joxee ndigal ma commencé ko ba léegi alhamdulilah. maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax. mbokk yi kooku mooy Cheikh Mamour Insa. rasulillah la ñuy رسول الله لما رسول الله لجي لما رسول الله لجي لما رسول الله لجي لما رسول الله لجي لما رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى

soon أهلا بينا المولدين المرسلين الله الله قبل الوجود الأولي يا رسول الله قد كان خير المرسلين يا رسول الله قبل الوجود الأولي آه، رسول الله رسول الله لجد ما رسول الله

damoo rasulillah la ñuy damoo di la damoo di la damoo di la damoo la te

ëllëg rasulillah la allah aduna alaxira macha allah Soxna Aida moom baye rek nga féetale ma lii moom daaneel na ma Baabulaay lii moom garaaw na lool macha allah xam nga Baabulaay Soxna Aida bu ne rasulilaay la ñuy ndamoo boo xamee daraja yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sànq dama ko laaj Soxna Aida kan mooy maam baay mu wax ma diggante maam Baye ak saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam garaat boobu mu am ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ku ko am faw nga bëgg ku bëgg yonent bi xaw nga bëgg ku bëgg yonent bi rasululaay ku ko am doo fanaan biti rasululaay ku ko am doo xaaraani sëñ Fallou rasululaay ku mu nekk ci yow nit ñi kay ñooy xëy di la wër waaye yow doo wër kenn Aïda mën nga ñëwal tuuti balaa ñuy ñëwaat ci leneen nga ñëwal ñu soxna ayda ak këru diine yi. waa alhamdulilah loolu moom euh, sëñ Assane yaa ma ko njëkk a wax léegi. Mm-hmm. muy ne këru diine yi ñeneen ñi nga xam ne euh, ñooy murit yi wala ñooy waa kër Seydil Hadj Malick yi ni ñu mel ci man. loolu dafay tegtale ne rek yàlla kenn la te man damay tudd yàlla ñoom ñuy yëg yàlla jooju nga xam ne ñu ngi koy tudd mm-hmm. benn ñaareel ba mooy tagg yonent bi nga xam ne ñu ngi koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp dafa tegtale ne ñoom ñëpp bi lañ bëgg sallallahu mooy li ma fi wax léegi rek ne maam Maodo yonent bi la ndamoo moom Seydil Hadj Malick euh, suñ maam borom Touba yonent bi lay ndamoo dégg nga ma ci ma ci profité waale du nuyu suñ bokk xaadir yi di ziar euh, sama frère sama xarit sama càmmiñ Cheikh Sadbou Samb macha allah barki dem rek la fi jaar. waaw suñu woyee day kontaan day. ñu wax fi lu neex allah noonu la may noonu la maa ngi koy nuyu euh, bu baax a baax a baax euh, ci buntu Chérif Alwani Maane Ndiaye mi nga xam ne mooy wasilaam. macha allah kër euh, noonu laa baree ay soppe. ñu euh, suñu kër maam Cheikhou Canaba mhm. waaw wax dëgg yàlla damay dem Fass barigo di def benn programme boo xam ne waa kër Cheikh Ibrahim ñoo may woo waaye daanaka waa Canaba yi ñoo fay fees dell dell macha bu ne teraanga bu ne lañ may defal foofu su ma demee Fass barigo may profité di leen nuyuwaale bu baax a baax a baax di leen ziar waa Fass Barigo yeeg waa Canaba yi yëpp daal euh, di wax rek dafa nekk mbir ma nga xam ne lu jóge ci xol dafay dem ci xol te wax dëgg yàlla tudd yàlla dafa sax ci xol dafa nekk ci xol te dafa am doole it ci doomu aadama ba nga xam ne boo ne laa ilaha laa moom foofu amatul murit murit laa ilaha illallah moom dafa dàq lépp saxal jëm yàlla ji moo tax soo koy wax duñu xàmmee yow fii nga bokk wala fële nga bokk waaye dañuy xam ne rek yaa ngi ci jëmmi yàlla ji yàlla la ñuy yëg moo tax ñu lay bëgg bëgg googu ñuy manifesté wu ci yow ñu lay manifesté di la wan ne la dañ la bëgg moo wane ne ñoom dañu am bëggeel ci yàlla dañu bëgg yàlla moo tax su fekkente ne da bëgg yàlla bu ñu tuddee yàlla yow xàmmeetoo kii tiijaan la murit la kii lële kii lële la lépp da ngay jël rek ñu daxañ ko ci jëm yàlla ji ndax moom rek moo fi nekk waaw coow li coow li moom yàlla rek la yàlla bu fekkente ne yow da ngay tudd yàlla mm-hmm. foofu moom wax dëgg yàlla kenn amatu fa place yàlla rek a fay nekk moo tax duñ xàmmee yow fii nga bokk wala fële nga bokk mm-hmm. ñëpp dañuy bëggee dañ koy kontaanee euh, moom zikkar soosu ñuy nga xam ne ñu ngi koy zikkar ñëpp a ciy bég ñëpp a ciy kontaan ba pare ñëpp lay jox xaal ñëpp ñoo ciy xaal parce que tudd yàlla moom mel noonu mbiru roxo la du mbiru bakkan. macha allah mbiru ruux la du mbiru bakkan xam naa dañuy jógu ci téléphone yi bu ko defee xam naa ni bu ñu ñëwee rek ku ñëw rek ñu jël la macha allah. waaye soxna Ayda Baye dafa waxoon ni ci yàlla lu ñu jógee ci yàlla la ñuy dellu loolu bokk na ci première œuvre bi nga xam ne moom la njëkk wane mu doonoon loo xamante ni lu àdduna bi yëpp macha allah ci la ñu xàmmee kan mooy soxna Ayda mu bàyyi mii toog waaye Ayda am na benn question bu ma la bëgg laaj tey boo duggee ci pays bi. dugg kër Cheikh al wane Aïda Baye kenn du ko kenn du ko nattable waaye Aïda Baye jigéen la par rapport ak góor ñi nga xam ne ñooy way foofu bu ayda duggee ci biir pays bi dugg ci biir tànt yi nan la Aïda di def par rapport ak jigéen ñi ci yaatal gi wala moom ni mu doonee jigéen ba noppi ak jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ci biir pays bi tey jii Aïda Baye nekk seen référence ba ñu bëgg a dugg si loolu laa bëggoon xam nan la demee ak yow par rapport nga doon jigéen nekk ci biir pays bi ak ñi nga xam ne ay jigéen la doon ndaw ba noppi yow nga doon seen référence ñu bëgg ñu bëgg ñëw nag dugg. waaw alhamdulilah beneen yoon laaj bu am solo moom nga ma laaj sëñ Assane euh, mbiri mbiri mbiri Baye mbiri Baye mbiri Aïda Baye ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim. macha allah nekk loo xam ne lu lu lu lu may touché lay doon loo xam ne lu ñuy laal lay doon ndax euh, dafa mel ni ni nga ko waxee nga ne ay la bàyyi nekk jigéen nekk ci pays bi Mawlana Cheikh Ibrahim am ay góor yuy tudd yàlla moom muy tudd yàlla mu ñuy wax li nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim wax na ko ci ay doomam yu jigéen ne yaa ayool yaa ayool bannaatu zaib na ila naylul ula amma bi abdaanil fala mu ne yéen samay doom yu jigéen na ngeen rëj-rëjloo ak góor ñi waxuma ngeen rëj-rëjloo ak ñoom ci yaram ci riisuwante ci mbiri àdduna ci ay góor ak jigéen di jaxasoo di def lu neexut yàlla waaye lépp loo xam ne yàlla gërëm na ko rek yéen samay doom yi jigéen mu ngeen ci rëj rëjloo ak góor ñi ba bu leen ci kenn mën loolu la Cheikh Ibrahim wax boo demee kër Cheikh Ibrahim tey njàng alxuraan bi amul góor amul jigéen jigéen ñi ngi wàcce kaamil di jàng bay mokkal alxuraan di tari alxuraan macha allah góor ñi tamit noonu lañ koy defee. macha allah ndax boo xoolee tey eh, suñu yaay jii di Seyda Mariam Ibrahim muy Seyda Mariam Bintu Ibrahim xaadimatul alquran. macha mu muy yaaboy mhm. moo yor daara daara yi ci Ndakaaru. Mhm. li ngay dégg ñu koy wax. bi ci Padois nii. Padois moom moom bi ci Padois waaye ak Mermoz ay Sacré Cœur waaw waaw Mermoz foofu yëpp macha allah. Mhm. ay daaraam ñoo fa nekk. Mhm. dundam yëpp alquran la moom macha allah dem na bitim réew ba tàyyi di fa jëli ay prix di ko indi fii ci senegal mhm. ñu koy décorer. te moom jigéen la donc Kër Cheikh Ibrahim loolu lañ xam boo fa demee tamit. amna dom bu ñuy wax ruqiyatu bay ñu koy wax ya ruqiyatu bay ruqiyatu bay ruqiyatu bay dañ ko dàkkantale baay yata bay sax lañ koy wax mom mhm. moy jigen bi ñëk taarif téré ci ci ci ci ci arab moy jigen bi ci ñëk taarif téré ci ci ci Afrique de l'Ouest bi sha allah mom ya ruqiyatu moom mhm. donc lii du fa gan tey boo demee ba Nigéria am na ay doomam yoo xam ne ñu ngi foofu ñoom tam ci alquran la ñuy yëngu ñu ngi fa di jàngale ay alquran di def ay conférence fii boo demee Medina Baye gii rek bi gën a jege am na moo sëtu Mawlana Cheikh Ibrahim bu ñuy wax Zeyda Ndeye Khady bu toogoon fii di conférence macha allah yàlla na ko fi yàlla yàggal waaye doo bëgg noppi ndax macha allah xam-xam bu mu lay wax donc lii. kon man damaa ñëw xëy na dooleeku kër bàyyi. waaye du fa gan. tudd yàlla ji waaye du fa gan te jaaxalu lee nit xale yi nga xam ne ñu ngi may roy ci li nga xam ne euh, moom lay def. Mhm. dama kontaan ci ñoom te it dama leen di ñaanal yàlla. dama leen di ñaanal yàlla yàlla dimbale leen te yàlla dimbale ñu ñun ñëpp euh, ba nga xam ne fi ñu war a teg suñu tànk dinañ ko fa teg. ba li nga xam ne ñu ngi koy def nii yàlla buñ ko booleeg dara loo xam ne. incha allah yàlla buñ ko booleeg dara yàlla nañ ko setal yàlla nañ ko sellal. kooku mooy Soxna Aida Baye ay Soxna Aida xam naa damay ñëw ci benn morceau boo xam ni ku fi ñëw rek dama la koy proposé ndax xam nga dañ ñi émission bi nu mu tudd wayal na bi wayal na bi nag dañoo jàpp ni bu la yàlla mayee baat bu neex sëñ Fallou ba nga mën a way. wayal sayidina Muhammad xamna ni borom kala bi ki bi dama koy baye mu noppalo su ko defé damay baye seigne fallu noppalo ma baye la yow kep ak babulay li ngay way ci yonent moy yeg yeg bi nga am ci sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ndax nit ñi ñi ngi ci ligne bi bëgg a dugg waaye dama leen ba dama leen bëgg baye ak Soxna Ayda mo wayal leen yonent bi sallallahu alaihi wasallam. li nga wax léegi rek yonent bi géej la noo ci duggee rek noonu nga ci tooyee yëg-yëg boobu na nga am laa bëgg nga wayal ko mbokk yi nga xam ne lañ lay seetaan te soxna ayda lu mu def lu mu def rek neex na leen ndax xam nañ lu mu def rek ci cheikh al islam la te cheikh islaam islam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ma bàyyi la ak Babou Laye. waaw ah, alhamdulilah kon dañuy woy yonent bi sallallahu alayhi woy ko ci abiyaat yi nga xam ne moom la ko Mawlana Cheikh Ibrahim Niass tagge macha allah sallallahu alayhi wa sallam ndax comme moom mooy suñu référence te comme woyal nabi lañ wax wax dëgg yàlla ñoom seen dundu yëpp dañ ko taalif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woy na woy yu bëri yoo xam ne daanaka lépp woyam yëpp sax yonent bi la ko woyee moom sallallahu alayhi wa sallam donc te comme mooy suñu référence moom Cheikh Ibrahim ñuy woy abiyaat yi nga xam ne bind na ko woy ko yonent bi bari na moom moo ko bind muy Muhammadul Moustapha awlaaw mawlaaw bàyyi moo ko bind bañi ba ba ba gàmm weeru gàmm dafa teru mu bind Mouhamadul Moustapha tagg yonent bi ba pare jox ko Paa Kabir Faye kon aj léegi moom laa wéy léegi bi mu ko ko joxee mu ne maa ngi dégg suñu suñu suñu mbokk suñu sëriñ Cheikh Ibrahima bi tey mu wax ne bi ko Papa Kabir Faye jëlee denc ko daf ko denc fàtte ko ba gàmmu jot bàyyi commencé gàmm mu ne ko Kabir Faye wéyal ma suma gan gi mooy lim bindoon jox ko ko Pa Kabir xool gis ne moom indaale wut euh, àndul ak euh, mbind ma ndax daf ko fàtte waaye bi ko bàyyi waxee ne ko wéyal ma suma gan gi rek ci la commencé mel ni dañ ko ko bindal ci àll bi macha muy xool di wéy di xool di wéy bàyyi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fajar kon ñun dañuy ñëw ci lim wéy yonent bi ci laamiyam bi muy nuuru mu awwalul wujoodi wujoodan fa huwa aslul usuli wal anjaali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeram nga moom sallallahu alayhi wa sallam mooy cosaanuk am ci bépp am نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأمجال راس الأصول والأنجال صلى الله عليه وسلم لم يزل نوره بأين الإله في انتقال في الكون بعد انتقال صلى الله عليه وسلم عاشقات نزاويات النوى من أجل البقاء والجمال سيدنا محمد قال ما الأرى فالموت أولى من عرام من قالوا قد أبلى هو من توابين وأني أنا بذاك الوصال يا محمد كم أتنا بشيرا ويقبلا برسول يا ملئا هنا بيبا عجوا قد شهري نتواضع مفاد القادم يا الله محمد ومتى اليتي ما مدوسنا وما أولد من برقاء البالين يا الله محمد dama am lu addition ak aw a tisatan lam tusislahu bi shiqale Seydina Muhammad dal quwaya bi dari bardan fa adal uru baqtan bi tawale yun ci Yàlla Muhammad وأتت قوابل موسى ثم آسية أتان لنا لك يا محمد وأتت أملاك شوم تدلى نور كل نجوم للمفتاح يا محمد جاء ذا المرتدى بتراب كريم بعناية ربنا المتعال يا محمد وأتطالب لا قشوم تدلى نور كل نجوم المفتال صلى الله عليه وسلم ودعت بدار ابن يوسف أو بيه رمي والجام قول جل رجال ينتي على محمد نور زمزان ربت قدين زمزان مصطفى جزا سلام دلال مرحبا بربيع في عتانا مصطفى القلق ووقار مرساله yàlla Muhammad jaa azal murtada bi tarafin kaydi bi inayati rabbina mutaale sallallahu alayhi wa sallam wa huwa maqtu suratin wa huwa maqtu nunda'in wa akrim bi zayn rijale yonent yàlla Muhammad amalatul amlakuna wa jinani وبحور وبدر في العالي يا محمد فتبدد أنواره ونارات وفبدى لهم بيان الجمال سيدنا محمد وتداخل إيوان شوم تولد في عبود رب القبر بعد انسفاله yàlla Muhammad raja mala raj ma suma kulla rajimi hala marqa wa yala min kamali naru fursin anaru umpi kumudin Wan kita anqita'in uyuni سيدنا محمد فرز فرس أصنامهم في جفون وانجدال رب أيضا جدال ينجي الله محمد مولد وعايرا العقول بالحال أزل المصطفى جزيل النوال سيدنا محمد مرحبا كل مرحبا بالمقابل وأني أنا أيضا لبنت لوابين أنجبت بالقطام ساق سلالة سيدنا محمد سبقت بالمغار كل فتاتين أنجبت بالدر يتيم قالين yonent yàlla Muhammad wa abado marada qulna lil yoon mu ayut mu yusrif bi door laale yonent yàlla Muhammad arda abdu fota da saxdin li saxdin sayidat bil ayjil qadidil taale محمد هاتي هادئة قد أتنوا ثم روح سبقت للجمال يا محمد أصبحت شاء أجي أنت معا ثم روح بأكتزاك سيدنا محمد بركة النبي أرقت عليها ربي بالمصطفى أطوب فأبلي محمد سقى جبريل صدره وبداعه صدر منه طبع مع جالي ينجي على محمد شقه بين شقه شقه بين شقه ثم زقه ثم عيدان بعد عزيز شقه وسلم شقه ثم شقه ثم أيضا بعد عازين شقه بانتقال سيدنا محمد وهو بار الإرفان شوق على الأرض ولكن أمهم في ضلال ينجي الله محمد وأشاه بما أشاء علوم وعشاه بإن دين وخسال ينتي يا محمد عام ست من عمري ما تدلعون مفردا بعد بخير مشال ينتي يا محمد وهو بعد وفعل مولاه بالهادي نبينا درا مثل موسى كلمي بعد البصالة ينتي على محمد وزبور لذاك إنجيل عيسى سرها باسمي وبالإرسال صلى الله عليه وسلم وهو الباق رقيت عيره حق وهو مزماز قاتم للجمال سيدي يا رسول الله السلام عليك يا عين التي تتجلى من عروش الحقائق سيدي سيدي سيدي يا رسول الله السلام عليك يا أولا تجلى نبوة نبوة يا رسول الله macha allah fay soxna Aida yàlla ñu ko yàlla fayal. mu mel nag euh, te xam naa dañuy bàyyi tuuti ayda soxna Aida soufflé ñu dugg ci téléphone yi téléphone yi bu ko defee ku nekk ci ligne bi ndax am na ku ma wax léegi envoyé benn message ni ma bëgg naa soxna ayda allo. allo asalaamaaleykum wa aleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi ñu ngi leen di ziar Euh, mbokk mi ñu ngi lay fay bu baax fooy woote ak noo tudd. <laughs> maa ngi woote Dakar fii si Alioune Sow golf. macha allah. soxna ay daa ngi nii. salaamaaleykum salaam. Cheikh Abdoulaye ngi leen di nuyu bu baax te di leen tur bi mën nga ñëw wax tur bi macha allah. leen baal man nag ma nuyu sumay sëriñ ba pare gannaaw bu ma jëlee jëfale sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu soxna ay def mel na xam nga baat bi de kon wuyu de dégg. waaw kañ ma ne ginnaaw bu ma jëlee sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim maa ngi nuyu di ziare suñu xalifa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane di ko ñaar yàlla fa mu gudd loolu ànd ak wér. amiin amiin di nuyu suñu imaam di ko ziyaara di ko ñaan yàlla muy imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé. amiin di imaamul akbar waaye nag di nuyu di ziyaara di ñaanal yàlla sama sëriñ Mawlaaya Cheikh Abdou Barhama ca Kaffrine di ko ñaanal yàlla fan wu gudd lool wu ànd ak wér. amiin di nuyu mbooleem jaam yàlla yi nga xam na ñu ngi déglu seen télé bi tey. macha mu mel ni tey bu doon wax na yàlla fu mu feeñ dañuy wax ne TMS. ndax ku nekk xam na ne la yàlla la alquran wax na lay sukkand si fay lenn melut ni yàlla waaye itam nag dëgg dëgg dëgg li ngeen feeñal tey ci seen télé bi néew na écran yoo xam ne feeñ na fa. kon ñu ngi leen di ndokkeel ci programme boobu bu baax. ngeen dalal nag tey soxna soo xam ne soxna la ci biir soxna yi. Mm-hmm. man di borom këram taxaw naa ci position pour mën a wax ci moom. Ah, muy tey su ma sañee te dëgg la sax nag li ma bëgg a wax nii fàqati jëttu féere woon yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moomu foofu la ma féere man yàlla daf ma bind ma nekk nit ku tàng jër maa gën a wax kaani boobu ñuy wax kaani guwaanaa yàlla dimbale ma itam may koo xam na ko doy waar laa loolu moom dimbalal yàlla rek xam nga nit boobu doon bind boppam dana demee neneen waaye yàlla moom la ma defare da jàppale loolu dimbal la ci yow ndax yàlla man dama gën ne lépp lum la teg rek bu la defee nga nekk ku tàng dana la boole ku sedd dana la bu la defee nga nekk ku sedd dana la boole ku tàng waaye dëgg-dëgg daal sëriñ bi maa ngi leen di wax ne yàlla sonn si ma booleel mën naa wax ne kenn amut ku mel ni moom. alhamdulilah rabbil alamin muy nit koo xam ne nit ku jub la. nit koo xam ne nit ku teey la. soxna soo xam ne soxna su yam palaasam la. xam li nga xam ne moo ko war bu dëkk ca xam li nga xam ne moom laa bëgg mu nekk ca te gis nga maa ngi lay wax bokk na ci li tax Aïda gën maa neex waxuma sax yonentu yàlla Muhammad waxuma sax Cheikh na Ahmad Tidiane waxuma tax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mi nga xam ne moom moo ñu boole waaye Aïda dama jàngee ci moom bëgg sa sëriñ ni muy def taalibe ndeysaan man maay borom këram di muqaddamu Cheikh Abdoulaye Wilane yor ay taalibe di yare hmm. waaye dama ne la man dama jële ci moom ay darsu ci bëgg sa sëriñ bëgg jim ah. bëgg Cheikh Mamour Insa ah. moo ko may tey lii mu am yépp macha allah macha muy bëgg goo xam ne man dama cee jàngee ba commencé royee ci moom di yokk sama mbëggeel ci suma sëriñ macha nit mas na may interpellé na ma waa yow noo mën a def ba ba noo mën a sëy ak ay Aida taaliba Cheikh Mamour la yow taaliba Baye Wilane nga ma ne ko Baye Wilane ak Cheikh Mamour yow bàyyi nga seen sëriñ. man ñooy seen sëriñ de. waaw ganaar ci nan ñëpp tey borom ganaar moo ko moom wala. moom ak def benn la. benn la rek. muy nit koo xam ne nit ku jub la. Mhm. nit koo xam ne daal ci gàttal parce que comme liñ bari na ay nit. macha allah. maa ngi seedeel àddina bi yëpp na gërëm naa ko. jërëjëf loolu dama koy seede ci suma dund mhm. xaw ma moo may njëkk a dee xaw ma maa koy njëkk a dee waaye te man li may ñaan sax mooy ma njëkk ko dee ndax moom ëpp njëriñ ci société bi xanaa ngeen dund ba ca kanam ndax moom ëpp njëriñ ci faydu Cheikh Ibrahim bi waaw sëñ bi bari na tey koo xam ne sëñ bi maa ma tuuti sëriñ bi bu ma dagg si ma nekk dafa ma dafa ma ñor ndax damay bañ nga yàq suñu émission bi de déedéet du yàqu du yàqu du yàqu du yàqu parce que yàlla rek laay wax moo tax du yàqu yàlla du yàq dara nii nag boo ko continuer da nga yàq suñu émission bi waaw danaa baax foofu. kon danaa ah. baax foofu. waaw nga def ci xorom rek. gis nga dama ne bari na tey kuy wax naan baatu jigéen awra la jigéen waxtu tudd yàlla. Ah. ay da fay mi baatam bi bokku si. bari na tey mu xaddam boo xam ne yaa ngi yor ijaasa ay da dugal ci fay du Cheikh Ibrahim bi yow dugaloo ko ci. Mm-hmm. lim dugal ci yoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow dugaloo ko ci. lum dugal ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane yow dugaloo ko ci. kon ki dafa nek tay soldat bo xamne ne Cheikh ibrahim bi dañ ko wara ndamo war diko ñaanal yalla fuñ ça ndax soldat la. sëriñ bi kon pour bañ yak seen émission bi da ngeen xamne ne nako sant nako yalla yalla gën ko dimbalé yalla yalla gën ko taxawu. yalla def barke ci njabotam yalla def barke ci ay yëngatoom def barke ci ay dalam ci barke Baye ñass ci barke Cheikh Tidiane ci barke yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa ngi nuyuwaat encore di ziarawaat sama moo sëriñ Mawlaaya Cheikh Abdou Barhama di ko ñaanal yàlla fa mu gudd lool wu ànd ak wér di ziarawaat itam sama soppe Cheikh Mamour Insa mi nga xam ne keroog bi may labat si ay wax yu rafet a rafet la wax ki man. te boobu gisuma sax xam waaye jàpp gi mu jàppale taaliba bàyyi laa rek tax mu am seen yooyu bu def ko ci man. moom itam maa ngi koy ziara di ko ñaanal yàlla bu baax di ziara mboolem muqaddami Cheikh Ibrahima yi ziara mboolem taalibe mi ziara mboolem doomam yi ñaan yàlla yàlla may ñu eggali koor gi ak jàmm ci barke Baye Niass ci barke Cheikh Tidiane ci barke Yonte Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullah Allah koku don wote moy borom Aida son Aida sa borom keur mo don wote wa mom dafa bax rek dafa wax ne dafa tang sax waye man gisuma tangayam manam don na nit ko xamne lima lay wax ni mo na ci mom mm-hmm. boko xamul mën mm-hmm. nga ko seen rek ne ki dafa tang ki ñem ñeme mm-hmm. caractère am li muy dégagé waaye boo jaxasoog moom mhm. di nga xam ne amul benn benn benn problème mhm. te ñii dëkk ak moom xale yi ma àndal ñu dëkk ak moom mhm. xam nañ ne nit ku baax la xam nañ ne jaboot la ndax ku baaxut jabootoo noo yor njaboot goo xam ne juróo leen ci zaayir ay doomi jàmbur ñoo nekk ci kër gi waaye ku ci nekk place bi nga am ci moom da ngay foog ne yow rek yaa ko am ci moom. ku ci nekk. waaw ku ci nekk rek. place bi nga am ci moom da ngay foog ne yow rek yaa ko am ci sëriñ bi. ndax jaboot boole jaboot gum boole ñëpp jaboote leen bëgg ñëpp wax dëgg yàlla xale yi fuñ turne ñu ngi këram loolu ku baaxul mbaa ku tàng ba kenn mënta dëkk ak yow doo ko mën a am sa kër. te foo fu heure bii nii boo demee kër ga xale yaa ngi fa ñu ngay attaaya ñu ngay sikkar ñu nga naan bàyyi loolu bu fekkente ne newut kilifa goo xam ne kilifa gu baax la newut kilifa goo xam ne nii kilifa gu neex a dëkkal la nit ñi dañuy daw këram donc nit nag kilifa nag dina am foo xam ne boo fa tolloo yor yenn responsabilité yi dinga am noo doxalee ak sa njaboot bañ mën a teg seen tànk fu leer bañ mën a teg seen tànk fu yiw bañ mën a teg seen tànk ci njub soo jàddee yoon dana la ko xamal ba nga xam ne jàdd nga yoon rusuta wax kenn dëgg dëgg moom fu mu ko fekk mu wax ko waaye bu ca pare pare na ca xam naa ci moom ne ku ku ku ñemewut fitna li muy wax dafa tàng yépp ku ragal fitna la maanaam ay mbiri mer ak ay yooyu li muy wax bu ko waxee fii léegi pare na ci pare na ci. su ci paree pare na ci kooku wax dëgg yàlla nit ku baax la. macha allah nit ku neex a dëkkal la. Uh-huh. ndax euh, bañ nekkee ba léegi man ak moom. waaw mooy li ma la doon wax sànq. man lii rek laa xam ci moom nii laa àndeek moom ànd bu rafet dara ñaawut wax dëgg yàlla. sa diggante ak sëñ Fall. balaa ñuy dem. Mm-hmm. ci Fall ba pare. ndax euh, sëñ Fall mii dafa nekk ak man nekk boo xam ne. Mm-hmm. man ci sama bopp sax daf ma yéem. macha allah ñu yokkal ko micro bi tuuti mhm. mën naa wax ne mbir yàlla la. Mhm. suma diggante ak moom. Mhm. nekk bi mu nekk ak man man sax daf may dem ba yéem. ndax euh, ku xamul soo ñu fekkee ñun ñaar dag naan ndax kii moom sëriñi fàllu la wala dañuy ànd rek di di di tudd yàlla. macha allah. ndax waxuma la jàpp ne yaayam laa. jàpp ne magam laa yooyu yëpp dépassé na ko waaye Fallou dafay dund ak man comme kuy dund taalibe buy dund ak sëriñam mhm. fi mu nekk nii suñ jataay bii mhm. xëy na lim nekk fii la waaye du toog ci kër ga sax ma toog mhm. su ma toogee su toogee man su ma ñëwee toog sax dafay jóg dem ndax kersa goo xam ne am na ko ci sama digganteeg moom bu siggi xool ma nekk na xale boo xam ne ànd naag man ànd boo xam ne ànd bu jafee jafee jafe la mm-hmm. ndax euh, ànd nekk bokk benn kër ànd mm-hmm. di dem programme di ñëw di tëddandoo di yeewandoo mm-hmm. te kenn mosul dégg benn coow bu jib diggante man ak fan lu ëpp fukki at ndeysaan loolu ànd bu dëgg rek moo ko bu fekkoonte ne ànd bi dafa nekk ànd boo xam ne àndi naxante la waaw gis ñaar ñoo hmm? ah, eh, nit mën na ñëw ci man wax mbaa nit hmm. nit ci man wax mbaa nit dem ci moom wax ndeysaan yooyu yëpp mun na cee munu cee ñàkk hmm. waaye dem nañ ñun ñaar ba nga xamante ne fi toll nii nit ñi ñëpp dem nañ ba xam ne ñaar ñii Mm. yàlla moo leen boole te li leen di taqale incha allahu ci yàlla lay jóge ci yàlla lay jógee ayca muy ñu tëral fàllu mbaa ñu tëral ma loolu yàlla na yeex ñu tëral fàllu mbaa ñu tëral soxna Aida loolu yàlla na yeex yàlla moo leen boole bu boobaa sax bu ñu dekkee yàlla nañ àndaat kon baax na alhamdulilah léegi ñu bàyyi laak ñu bàyyi laak suñ fàllu laa ilaaha illallaah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 Ah, wax naa leen sànq ni leen baatu laa ilaha illallah xol bu mu nekk dara xaju ci waaye soxna Ayda daal tooyal nga xolu jullit yi tooyal nga xolu xolu xolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi lii mooy Sénégal lii ku ko dégg faw sa xol yëngu ndax ñun Sénégal lii rek lañ xam Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasool mi nga xam ni moom mooy am garaatu xaadim rasool ci lii rek la woo nit ñu mooy liggéey ak jaamu yàlla waaye tey xam nga ni ñi nga xam ne ñoom ñoo jaboote waa kër Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yaay lañ doon seet yow la yow yaay Muhammad rasulina liggéeyal sëriñ sëriñ Touba nit kuy liggéeyal aussi ci diine lislaam nga xam ni amul xàjj ak mana maanaam képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci yonent bi rek moom dafa féetoo ak ñooñu ndax euh, Mbacke mi nga si moom mooy wasilaam di léppam boole kook sëriñ Ablaye Tage maanaam dafa ne ko sëriñ Saliou nga ni bi yëpp la macha allah moom ñu ngi toog di la déglu. Euh, ni ma ko waxee sànq colonel Bass di colonel Douane. di kenn ci njaboot ci Ahmed Tidiane Chérif moom it mu ngi toog di la dégg waaye Tamsir Soxna di ku baax Tamsir Soxna moom waxuma la béggee baay kii nga xam ni mooy Soxna Ayda Baay te jii laylatul xadar bu ñëwee daanaka yow fa ngay fanaan ñëpp fa la ñuy nekk macha allah di ko taggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne teranga bu mu am rek mi ngi ko ci def kon mom ñing ini koy nuy di ko ziar bu baaxa baax mu melni ni dafa am ku nekk ci ligne bi xamna nit ñi ñom ñi ngi bëgg dugg waaye ligne bi mo xawa saturer saturé rek ndax ñi ngi may envoyé legi message ni ma wa États-Unis dañoo bëgg dugg ñom dañoo bëgg dugg nga xamni même ñi nga xamni ño nekk port ñom nit ñi ngi bëgg dugg ci ligne bi waye nima ko faral di waxee rek soxna Aida soxna nañ ci ben jamono yi muy benn feebar boo xam ne mbas la muy coronavirus bi coronavirus bi nag ñëw baare lu bari les programmes xam nga ni du mois de mars avril mais yooyu yëpp soxna Aida daanaka am na yu mu nekk ci dëkk bi am na yu mu nekk ci dëkk bi maanaam ak programme yooyu nan la la def ci bi nga xam ne mbas mi ñëw na. alhamdulilah sant yàlla d'abord sant yàlla beneen yoon rek ndax euh, ñun ay jaam lañ macha ay jaam lañ. Mhm. yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk moom ñu moo dogal lii tey. ndeysaan defal nii tuuti ñu dégg la. waaw ma ne ñun ay jaami yàlla lañ. Mhm. yàlla mi ñu sàkk moom ñu. Mhm. moo sàkk corona mi nga xam ne moom la ñu indil tey. Eh, ak lu mën a xew rekk ñun munuñ lu dul lu yàlla def. ñu ànd ci ak moom te it sante ko ko ànd ak loolu it ñu ngi koy ñaan mu teggil ñu ko ci nim gën a gaawee ndax comme ni nga ko waxee baare na ay bunt yu bare bare bare ndeysaan ndax tey ku xam ay damu bàyyi xam ko ci yëngatu ci weer wii nii mm-hmm. ay yëngatu yoo xam ne ci ay barab yu fasantikoo la koy defee di dem bay génn dëkk bi sax di dem ci yeneen dëkk mhm. di yëngatu te yëngatu yi yëpp tudd yàlla la ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. donc bu fekkente ne yàlla ñëw na ak mbiram mhm. indi lii tey nga xam ne moo gàllankoor ñëpp ñëpp jaaxle ci tamit duñ def lu dul sant ko waaye duñ def lu dul di ñaan yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem mu teggil ñu ko ci barke weer bu sell bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko teggil yàlla na ko fi gaaw jële mm-hmm. ñi nga xam ne loru nañ ci ñàkk ci seen bakkan ñu ngi ñaan ñu yeewoo aljana yàlla mm-hmm. nañu xippee ji aljana mm-hmm. ñi nga xam ne jot na leen a dal te jamono ji ñu ngi tëdd ci lali hôpital yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla fugg seen bopp rocc ko ci ñoom ba set mu sànni ko di ñaanal ñim dalagut yàlla bu mu leen dal yàlla bu mu dal kenn ku mu dalagut te yàlla ko fi yalla gaaw jele jele ko senegal jele ko ci aduna bi yeb diaspora bi ñu ngi leen di baye xel bu baaxa baax moy ñi nekk bitim réew rawatina wa États-Unis waa Amérique yooyu ñu ngi leen di baye xel di leen ñaanal yalla parce que suñuy soppé tamit ñu ngi fa suñuy soppé nga fa ñoom a ah, soxna roqeetu ñu lay nuyu bu baaxa baax mhm. ñu ngi nuyu Zeyda Amsatou cisse mhm. ñu koy nuyu di doom ci cheikh euh, euh, suñu imam Cheikh Tidiane Ali Cissé. Mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mi ngi foofu ci États-Unis ñu ngi nuyu mbokki jullit yi fa nekk yëpp parce que am nañ fa ay soppe yoo xam ne. Mhm. wax dëgg yàlla duñu sax taalibe bàyyi. waaye sopp te yàlla tax. day am dañ ma bëgg te yàlla tax mooy li ma lay wax ne la diine ji lépp benn la ndax tey ni ma taalibe bàyyi di bëggee noonu la ma murit yi di bëggee noonu la ma xaadir yi di bëggee laayeen yi di ma bëggee noonu ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci ci ñi ngi ñi ngi ci réew mi fii ak ci bitim réew ñoo xam ne samay soppe lañ yoo xam ne ay murit lañu bërki démboo man fan yi yëpp sama téléphone bi presque bu sonné ñi may wuyu ñëpp ay am na ku ni ma léegi nag ay soxna Ayda moom faaw waaw bu ñëw nag may ñu ci dara ci murid yi <laughs> bu ñu mayee fii may ñu fii may ñu kër naa Limaam waaye waa panel sallallahu ala muhammad bi nga xam ni euh, El Hadj Ndiaga Seck macha allah di suñu naataango boo xam ni mi ngi nekk fële ci benn organe de presse euh, moom it muy soppee nabi sallallahu alayhi wa sallam créé benn mouvement bu tudd sallallahu ala muhammad ak waa soppey nabi ñoom it ñu ngi lay nuyu di la ziar ñoom it ñu ngi toog di la teewlu waaye soxna jatu jàllo juuf di satu buur sin ku mëndoo fen nekk fii ci géejawaay doomu ndey kinne juuf ak Aïcha ñoom it ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax li ma sama xarit bi wax ne ma soxna Ayda ñun ay soppeem lañu noonu nag ay murit lañu njabootu Serigne Touba lañu njabootu Cheikh Mouhamadou Fadl lañu ku ci mel na Zal Couture bi ma ne ko soxna Ayda la dafa ni Konde tey macha allah du du lewat la sëñ mën soo doon wax naan yëf yi dina ala daw ndax yëf yi mel na ni ala daw me na ba noppi ndax soxna Ayda moom bu ñëwee rek daanaka dara da nit bu fi doon wax ba suba it daanaka ñëpp ay kontaan waaye soxna Ayda xaaral ma jël téléphone bi allo salaamaaleykum allo mu mel ni am na ku ne ci ligne bi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam Assane. waaw kooku. man la Youssou Dieng. ah soldaaru Baye. waaw soldaaru Mawlana Cheikh Ibrahim. sëñ Youssou ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu yaa ngi ci biir soxna Ayda ngi nii toog. waaw maa ngi si ñëpp di jël jël nuyoo di ko teg sa loxo. macha allah da ngay ko ci loxo Ayda bu fekkee da nga nekk ci télé da koy pousse tuuti. waaw ñu ngi siyaar ñëpp di rafetlu plateau bi di am contentement ak mbëgte. Mm-hmm. waaw. sëñ Youssou. waaw sori naa télé bi sori naa ko. waaw macha allah ah, man ñu ngi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. wax nga dëgg waaw soxna mi ngi lay déglu ah, ñu ngi siyaar soxna Aida bu nekk ci plateau bi. yàlla yàlla mm-hmm. nangu siyaar ñaanal yàlla allo. waaw ñu ngi lay déglu ñëpp fa ngi lay déglu macha allah. jàng jàng allo Youssou waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mhm. di di siyaar soxna Aida di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a wéral baat bi. amiin yaa rabbi amiin amiin ci allo. allo ñu ngi lay déglu. ñëpp di Assane aussi. Mhm. ñu ngi am contentement bu baax a baax a baax suñu grand frère suñu lépp. Mhm. vraiment teete ñu jàppale ñu ba ñu agsi fii kon donc aussi yow amuñu sa fay. Mm-hmm. mais yaa yaag yow ñu ngi kontaan ci yow sunu fans nga mm-hmm. ñu ngi am mbégte vraiment li ngay zikar yaa ngi taxaw Mawlana Cheikh Ibrahim yaa ngi koy dëggal fu ne ñu lay siiw di la seetaan bi ñu Assane waxee nañu yow yow la ñuy invité boobu léegi ñu ngi toog jàkkaarloog télé bi donc vraiment loolu ñuy am mbégte ak contentement te di ñaan yàlla lépp loo xam ne bëgg nga ko ci sikar bi yàlla na la ko bàyyi defal. amiin yaa kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. amiin waaw bëggoon bëggoon nañ la gis nag xam naa après gën a toog ak yow. pour gën a amante ak yow connaissance parce que vraiment suñu suñu suñu pense nga. Mm. bëgg nañ dañ lay bëggee lu bëree bëree bëree bëree bëri bëri. incha allah Dieng incha allah. waaw ñu lay bëggee lu bëree bëri. bu soobee yàlla. ndeysaan kooku suñu rakk la mm-hmm. transitaire la nekk fële ci port waaye nit la koo xam ni euh, Cheikh Al Islam rek lay bëggee lu mu la wax nag ba ni la barke Mambaay moom xamal ni loolu incha allah dina ko def waaye say soppe say wëlëre ki nga xam ni mooy yaay diyaama yaay diyaana jaañ yaay diyaana jaañ defe naa ni ku xam kër Mambaay rek xam nga euh, tafsir Alioune Ngom ba Sokone ñoom ak waa këram yëpp. xam naa baax ngomeen yaa ma ngoog yaa diyaana jaañ moomu nag

Euh, wax dëgg yàlla nga xam ne ci ñoom laa nekkoon di di di yëngatu ci affaire album. Mm-hmm. ci seen studio di manager Omar Pène euh, di suñu mag ju baax Ousmane Faye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñoom Omar ak ñoom Cheikh Tidiane ñoom Zahra ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. di nuyu suñ papa Amadou Amadou bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. moom it Sokone la dëkk. Mm-hmm. saa yu ma demaan ci ziyaaru Ngomen bi. këram laay nekk fa laay yendu fa laay defee lépp mu doon sama papa joo xam ne daf ma bëgg ci biir xolam comme doomam mhm. donc maa ngi koy gërëm maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di ñaanal euh, sëñ Youssou Dieng mi nga xam ne mu woote léegi mu koy ziar moom tamit di ko mhm. ñaanal yàlla yàlla dimbale ko lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko amiin ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass maa ngi gërëm soppe yi nag ak xarit yi. Mhm. maa ngi gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn wax dëgg yàlla. soxna Aida xam naa ne day ñëwaat tuuti ndax xam naa ne sa digganteek ñi nga xam ne ñoom nga bokkal ëttu yonent bi ñii di Tijaan Murid Xaadir ndax pare nga pour def ak ñoom dara loo xamante ni lépp nag day nekk ci biir euh, taggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ko defee nag nga xool yow nan nga ñuy maye nag ci dugg ci kër diine yi nag ndax soxna Aida tey moom comme ñëpp koy bëggee tey dañoo bëgg mooy rek. su ko defee moom dana dugg ci fépp nag maanaam bégal leen ci yonent bi salaay salaam. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax euh, li nga laajte nii dafa fekk mu nekk ñun ci suñu xol ñun ñëpp. macha allah ñun ñëpp dafa nekk ci suñu xol. Mhm. muy doon loo xam ne ñu ngi ciy waxtaan te ñu ngi xool nan la ñuy def. ba taxawal lu mel noonu parce que bëgg nañ def benn compilation boo xam ne mhm. wéykat yi nga xam ne ñoo nekk ci kër diine yëpp ci nekk dañ ci bokk incha allah ñu yonent bi woy mag ñu baax ñi mm-hmm. euh, pour wan nit ñi ne ñoom ñëpp benn lañu woon wax dëgg yàlla mm-hmm. dëgg-dëgg ñoom ñëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lañ aju bu ko defee ñun ñëpp ñu mun a jàppante ndax dispersé wu dafay indi yu mel nii rek lay indi ay jafe-jafe rek la ñuy indil ci suñu réew mi te loolu xaju fi moo tax yàlla andil ñu lii di ñu ko xuppee pour ñëpp ñu dellu ci yàlla ñun ñëpp ñu bëggante ñun ñëpp ñu fonkante bu ko defee bu ñu ñaanee pour mu nangu day yomb. incha allah yàlla day gaaw nangu ñaan yi bu ko defee indil jëlee fi jafe-jafe andil ñu jàppandal andil ñu xéewal andil ñu. lepp lo xamantene moy mooy ci suñu rew mi te loolu lañ soxla yalla ñu yalla dimbalé jëleen ñu fi feebar bi yalla na yalla tappe xol yi yalla na yalla def ñëpp booloo doon ben ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam amin fo ñi ñew nak ñi ngi ñaan yal ñu yalla defal lu soxna ay ak soppe murito bara imadulamin, amin bara, amin bara i am ndam murito baaraay madu laamin mamadu laamin baara baara kula way am ndam baari saxaaya murito baaraay madu laamin mamadu laamin baara baara kula way am ndam baari saxaaya murito duñu dugg luy naaw jëm kaw duñu dugg luy xuus jëm ndaw otoraay Tuuba lay dem baari saaka masha Allah Allah baay Allah Allah baay Allah Allah baay Allah, Allah. rasulillah lañuy ndamoo rasulillah lañuy ndamoo rasulillah lañuy ndamoo billaay ya rasulillah lañuy ndamoo Allah Allah Allah Allah ألا ألا ألا ألا ألا rasulillah la ñuy demoo allah rasulillah la ñuy demoo allah rasulillah la ñuy demoo baay rasulillah la ñuy demoo ya rasulillah bilay ya jaranamoo الله يا رسول الله بالله يا جرانمو رسول الله لنيدمو رسول الله لنيدمو رسول الله لنيدمو رسول الله لنيدمو رسول قديمك نادى يا رسول تعالى رسول الله لنجي دمو رسول الله لنجي دمو أهلا بشار المولدين أهلا بشهر المولد ذكرنا بالمقد عدل الوصال سيدي حبيبنا المبجلي قد كان خير مرسلين قبل الوجود الأولي ولم يكن من جندلي لأجلنا المواصلين لم يدر خير القلق في قلقي وقلق سوى إلى إلقي من ملك أو مرسلين رسول الله لن يدمو بالله يا جرنمو الله أهلا بشار المولد الله ذكرنا بالمقد يا رسول الله بر موجلين مو يا رسول الله بر موجلين مو الله يا رسول الله baraama moo ngi lay namoo. rasulullah lañuy namoo baraama moo ngi lay namoo. rasulullah lañuy namoo. Rasulullah lañuy namoo Mam Bamba moo ngi lay namoo Rasulullah lañuy namoo رسول الله إلينا قديم القديم إلينا رسول الله إلينا ما موضع مونج إلينا رسول الله إلينا ما موضع مونج إلينا رسول الله إلينا ما مبكتا مونج إلينا رسول الله إلينا سيخجنا lay ndamoo rasulullah rasulullah seexu janaba ngi lay ndamoo rasulullah rasulullah seexu janaba ngi lay ndamoo rasulullah lañuy ndamoo rasulullah regni in amore. Rasulullah, regni in amore. Rasulullah, regni in amore. Rasulullah, regni in amore. Rasulullah, regni in amore. Rasulullah, regni in amore. Rasulullah, regni in amore. Rasulullah, regni in amore. namoo rasuulullaay la ñuy lay namoo rasuulullaay lay namoo ki rasul ya jarandamo rasulullah ya rasulullah جرموا رسول الله يا رسول الله بالله يا جرموا رسول الله يا رسول الله أهلا بشار المولد رسول الله يا رسول الله ذكرنا بالمقتدي أهلا بشار يا رسول الله أهل الأصول حبيبنا المبجل رسول الفار المولد الله أهلا بشار المولد أهلا بصار المولد الله أهلا بشار المولد أهلا بصار الله الله ذكرنا بالمقد أهلا بصار الله الله أهلا بشار المولد أهلا بصار المولد الله الله بشار المولد أهلا بسار ألا ألا ذكرنا بالمعتدي أهلا بسار المولد ألا ألا أدن الأصول سيدي حبيبنا المبجل رسول بسار المولد رسول الله لن ينمو